jafe yi nga xamante ne ñun dañ ko am bu ñu toogee fii di ko wax ba suba du jeex comme ni nga ko waxee nag dinañ ci tënk li ñu ciy tënk mooy maanaam dayo bi nga xamante ne war nañ ñu ko jox joxuñu ñu ko muy li ñuy wax ostracisme maanaam dafa mel ni dañ dañuy stigmatiser waa secteur informel dañ leen di rejeter en quelque sorte waa secteur informel alors que maa ngi dellu ginnaaw ñun ñoo yor économie réew mi kon loolu jafe-jafe la parce que nit bu fekkee da ngay ànd ak moom àndu nawle la war a nekk. Mhm. surtout nag état ak benn euh, benn euh, ponk boo xamante ni dafa am solo ci réewam. Mhm. mais àndu nawle amul suñu diggante. benn deuxièmement mooy bu ñu demee ba ñun ñi nga xamante ne ñu ngi dans l'artisanat et dans le commerce ñu am accès exclusif laa wax bien de la commande nationale bu boobaa ñun am nañu problème. commande nationale bi ñu muy le mobilier muy tenue yi ñuy wax ak yooyu yëpp ba ci construction yi ñun maanaam dañuy jël les multinationales jox leen ko ñun ñu réglé relégué ñu au second plan kon xam nga loolu jafe-jafe la li nga xamante ne aussi ñu ngi koy dund ci biir marché yi nga xamante ne dañ ci nekk parce que ku ne secteur informel ne marché insalubrité totale insécurité totale te loolu li muy li mu ñuy yeb mooy li ngay dégg d'après kii bi ma def moyen bi ma def presque chaque cinq mois ñu ne la marché lakk na. au Sénégal. chaque cinq mois. chaque cinq mois ñu ne la marché lakk na. peut-être à des degrés différents. bien mais nag marché lakk na loolu la muy yàq ci alal kenn xamul nu mu toll. te pourtant saa yu marché lakkee ñoom ñëpp toutes les autorités étatiques voire communales dañuy ñëw def seen défilé ñëw foofu. lan la ñuy indil des discours fleuve yoo xamante ni ñu benn njariñ buñ ñu wanee naaw pare lañ ci dañ naan ñii dañoo doyadi